marché boo xam ne nit ñi dañ lay dalal nga di leen waxtaanal ci ay thèmes yu fasanti ko ci wàllu diine ñoo ñépp nag jamono jii ñuy waxe jàpp naa ne waxuñu lu ëpp solo waxtaane loo xam ne daal aju ci réew mi ci Sénégal man dama jàpp ne jamono jii képp koo xam ne mbooloo dañu lay diglu ngay wax ngay wax leneen lu bokkut ak tolluwaayu réew mi mbooloo moomu sax dañoo war a jóg dem seen yoon waaye waruñu laa bàyyi xel waruñu laa ndax ñun ñëpp xam nañ ne réew mi daa toll ci benn tolluwaay boo xam ne day mel ni kii bu ñu teelu la àq bu ñu teelu la jël suñu ay matukaay ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu mbooloo yi bu ñu teelu la àq teel a jël seen ay matukaay réew mi mën naa àgg foo xam ne dëgg-dëgg kenn ku ci nekk boo doon wax ne sama yoon nekku ci dana mujj yàgg sa yoon dana ci nekk te loolu la koy waral mooy ay fitna la koy waral mooy ñàkk jàmm te jàmm mooy li nga xam ne képp ku ko amut doo tala lekk doo tala la xatta sax jaamu yàlla sax muy julli ci jumaa yi jàkka yi bu jàmm amul kenn ko dal falyabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf loolu lay waral nga man ko te mooy jaamu yàlla boobu mooy jàmm dafay daal yàlla beneen bi ci tege mooy jàmm daa loo xam ne bu ko nit ki amee manees naa wax ne ñàkkul dara sama waaye bu ko nit ki ñàkkee manees naa wax ne lu man di am it day mel ni ki amul dara ndax daa ñàkk jàmm waaye it ñu bàyyi xel ne amul menn réew moo xam ne mën naa développé moo xam ne ñu tuddee développement social wala développement économique wala développement culturel ak ci wàllu bu mën di doon ci wàllu yokkute lu dut jàmm dafa nekk bu fa jàmm nekkul ak yokkute mun dam loolu la koy firndeel mooy gis nañ ay réew yoo xam ne réew yu amul doole la mën nañu ci jël réew mu mel ni ci Libye jël ci réew mu mel ni ak yeneen réew ak yeneen réew waaye réew yooyu yëpp ba fa fitna duggee ñàkk jàmm dugg fa dañoo gis ne la ñu amoon ci wàllu koom-koom la amoon ci wàllu yokkute lañu amoon ci nàngam ci nàngam ci nàngam loolu lépp lu ñëw mu jeex ñàkk te loolu la ko waral mooy fitna dafa te suñu borom nee na woon wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa fitna day doon loo xam ne du yem ci bopp borom dem nañ ba gis ne fii mu àgg ci jamono jii day mel ni ki daal musu fee woon a mën a àgg ci réew ndax daa jéggi lu aju ci wàllu programme lu aju ci waaye daa dem ba nga xam ne ay jëmmi doomu aadama ci boppam sax nag dëgg-dëgg mënees naa wax mooy mbir mi ci réew moo xam ne it gis nañ ne bu njëkk dañu naan séeréer ak tukulóor joolaa ay kal di tooñal ñi sant ñang sant faal sant jeng sant meng ñee sant njaay jóob sekk jaw Guèye yooyu yëpp ay kan la nga xam ne dafa bokkoon ci li nga xam ne day jëmbat jàmm ci réew day mel ni nag jàmm jooju daa am ay mbir yoo xam ne mooy jóg di ko menacé réew mi jamono yi ñu toll bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti gis nañ fi ñoo xam ne dañuy génn def seen ay sorte saaga aw askanu lëm ñoo xam ne dañuy def ay sorti jël askanu lëm yëkkati kàddu bu doy waar kàddu yu ñàkki teggin teg ko ci seen kaw te ñoo ñooña dara du leen ci fekk dara du leen ci fekk am na fi ndaw soo xam ne génnoon dafa fi yëkkati ay kàddu yoo xam ne jëme ko ci wenn askan loola mën naa taan am réew waaye dara fekk bu yàggul nii bu ma juumul ci ñaari weer lay toll am keneen koo xam ne day mubboo woone moom nitu diine la yëkkati kàddu yu ñàkk ci teggin teg ko ci aw askan kooka it loola dara fekk ko ci te kenn ku ne xam na ne bari na réew yoo xam ne tàkk na ci àdduna bi la ko taal mooy li ñu tuddee ay conflit ethnique muy ay xëccoo yoo xam ne daal jëm ci wàllu xeet Serigne Mahi Niass doom ci Cheikh Ibrahima Niass yal na yàlla sàmm ko te aar bu yàggul dem na fii ci réewum Soudan la ko taxoon a dem mooy jubale ay askan yoo xam ne dañoo nekk ci ay xeex ba ay bakkan yu baree bare sax di coroom te xeex yooyu yëpp la ko jur mooy kii daa bokk ci xeet sàngam kii bokk ci xeet sàngam kii bokk ci xeet sàngam diversité boobu nga xam ne daa am ci wàllu ethnie ci xeet am ci suñuy làkk dafa war a nekk loo xam ne mottalante lay doon ci suñu biir يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا li am solo mooy inna akramakum inda allahi atqakum tukkulóor bi wolof bi pël bi séeréer bi joolaa bi kenn gënul sa moroom lenn rek la ñu gën a nit mooy ku la gën a rafet jikko moo la gën a làkk yeeg couleur yeeg yooyu yëpp wa min ayatihi ixtilaafu alsinatikum wa alwanikum loolu dafa bokk ci kiimtaani suñu borom jàmm ji nag mbokk yi bu ñu xoolee ci alquran suñ boroom mi ngi wax ne inna asxaabal jannati fi shugulin faakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al lahum fiha fakihatun wa lahum ma yaddaun salaamun qawlan min rabbin rahim muy kàddu jàmm koo xam ne day bàyyi ko ci suñ boroom di ñëw ci waa aljanna diine gi nga xam ne su borom nee na ku jéem a sàq beneen diine bu dul lislaam lépp loo ca jëf lu mu baax baax man yàlla du ma ko nangu wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin daa bokk ci tur yi nga xam ne suñu borom jox na ko ko mooy asilmu bii fi di jàmm muy la paix yaa ayuha alladina amanu duxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutuwaati cheytan waa aljana bu ñu nuyoo ëllëg seen ak nuyoo ci jàmm lay doon taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam seen nuyo seen diggantek seen borom seen diggante ak seen digganteeg malaaka yi jàmm lay doon salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin jàmm yàlla nekk ci yéen yonent yi buñ leen di ñaanal ñaan gi ëpp solo gi ñu leen di ñaanal jàmm da cay bokk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin waaye yàlla suñu borom nee na jàmm ci ay xéewalam la bokk yàlla nee na jàmm ay xéewalam ci la bokk واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها waaye léeg-léeg yàlla bu naree mbugal aw askan da leen di xañ jàmm mooy fitna day dugg ci askan woowa te mooy la mu wax ci alquran ne وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لباس الجوع والخوف mooy da leen a xiifloo waaye da leen a xañ jàmm muy lu ñu tuddee insécurité kon jàmm ji nga xam ne yàlla daf koo def ci réew mi ba mu agsi fii mbokk yi daa doon loo xam ne lu jar a sàmm jàmm jooju nag li koy sàmm bokk na ca mooy ñu soppante bëggante ci suñu biir kenn bu mu am lenn lu mu tuuti tuuti ci xeetu mbañeel di ko jëmale ci sa mbokk sëriñ bu mag bi nee na woon inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi surur wal amaan ama taxaasubu fa li shaqaawa yaquudu ahlahu xalaal nee na li nga xam ne mooy soppante bëggante mooy jëmmi gëm yàlla te ñi soppante bëggante dana am mbégte dana am kaaraange waaye kañaanante ak noonoo nee na fa mu jëmee ñu ko def texee di rek da ca la kon soppante boobu nañ ko def ci suñu biir bëggante boobu beneen bi ci tege mooy kenn ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon kenn ci yéen du gëm lu dul la mu yéene boppam te mooy lu baax ba koo yéene moroomam la mu boñal boppante mooy ab safaan da koo bañal moroom doon wax ne jullit ñi ci seen ak bennoo ci yërëmante ak ci bëggante dañoo war a mel ni ci benn yaram boo xam ne ci benn cër tawatee yaram bi yëpp daf koy yëgal waaye mbokk yi bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne moo war a mën a indi jàmm ci réew mi muy li ñu tuddee maanute al adal justice gis nga réew mi fii mu toll mbooleem ñiy wax day mel ni ki dëgg-dëgg daa am loo xam ne dañ koo bàyyiwul xel wala boog am nañu ko bàyyi xel waaye am nañu ko bàyyiwul xel mooy askan wu man di doon bu fekkee tooñaange li ñu tuddee injustice dafa tasaaroo ku ànd ak nguur gi loo man di def ñu bàyyi la ku àndut ak nguur ñu fexe nu ne la niib jàpp la askan woowu buñ ne jàmm dana fa am jàmm du fa am mbokk yi lii nga xamante ne sii dañu wax ne tey jii nii ñëpp tiit nañ seeni xel am na fu mu dem ci réew mi lenn rek a ko mooy mbooloo moo xam ne ñoom dañu ne dañuy jóg def seen manifestation manifestation mooy lan mooy dañoo am lu ñu naqari loola dañuy dem dajee ci benn barab daat koy feeñal ne lii moo ñu naqari manifestation boobu ñu ne droit constitutionnel la mooy jëmmi sartu réew mi moom moo maye ne képp koo xamante ni si dangaa bokk ci réew mi wala sax bokk ci réew mi nga nekk étranger boo amee lu la naqari sañ ngaa jóg feeñal ci Dakar mooy ki nga xam ne mooy yilif di préfet wala ki ñu tuddee sous préfet yëgal ko ko yëgal yëgal mooy lan mooy informer ko jox ko information ne ko damaa bëgg def nangam waaye autorisation sax wër gaam la jaaru mooy loola dañ ko war a encadrer léegi mbooloo moo xam ne bii jàll dañ leen a may ñu manifester ba ñu manifester yàlla def daara xew fa far sax ña doon manifester la fa ci ay takk-takk dañ ko doon jël di ko buub maanaam ngir seetal baram ko dara yëngatuwul ci réew léegi ñu laajaat ne dañuy manifester ñu ne leen du ngeen ko def te fekk yoonu réew mi moo leen ko may lii rek daanaka mooy firnde ci maanaam li jaar woon mooy tey li nga xam ne moom lañ déployé ci ay forces de l'ordre ci Ndakaaru ak fu mel ni ci Ziguinchor daara gënutoon simple mooy yéen da ngeen a bëgg a marche da ngeen a bëgg a dajee may nañ leen ko nii lañ koy defee dañ koy encadré jeex na takk jeex na takk mbokk yi gis nga bu ñuy wax minbar ci jumaa ak ci jàkka taxaw di wax ay faratay jullee ay faratay jàpp tooxu koo li ko tax a jóg mooy conscientiser tawayee nit ñi ci li xew ci jamono te li ngay wax na nga ko wax di jëmm yàlla rek tax mbokk yi li tax ñu ne réew mi bu fi maanute amut dëgg-dëgg fa mu jëm du yomb mooy daa am ñoo xam ne dañ leen a jàpp tëj leen ci kaso semaine bi jàll am na koo xam ne fii la dëkk ci Touba bokk ci njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo yor dëkk bi dañ koo téye yóbbu ko genre gendarmerie wala boog sax dañ koo tëj far ne mu jeex kenn nañ ko tëjee mooy dañu ne daa yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ñàkki teggin la jëmale ko ci jiitu réew dëgg la kàddu ya mu yëkkati kàddu yooye kenn du ci d'accord ndax kàddu bu ñaaw moom kenn du d'accord ci ñu di ko jëmale ci kenn nag ak ku man di doon waxulu linnaasi xusna waaye jamono bi ñu koy tëj moom booba ñi ngi ne dafa am lu ñu tuddee immunité parlementaire mooy député la député bala ñu koy àtte wala ñu di ko tëj dañuy tindi malaanu kiir laayam loola amut dañoo jalgati loolu daal koy tëj directement jamono boobu ñu tëjee ko xoolal jamono bi ñu ko tëjee am na keneen koo xam ne walla ñaar ñoo xam ne kenn ki moom daa nekk ci internet bi di saaga waxuma la wax ni de waaye dagg ay kàddu yu ñaaw fa mu gën a doye waar ci waajuru góor ak waajuru jigéen di ko teg ci ay jëmmi doomu aadama ay responsable kooku njiitu réew mi dalal ko ca pale ba yëpp ñu ci dalal ko dañ koo investir ci ab liste ci député yi jëmm moom nekk député jamono boobu ñuy jël kooku nga xam ne ci dëkk bi la dëkk di ko tëj di ko yóbbu prison booba ki jiite réew mi ma France ba mu demee France yàlla xam na ko ne ki doon dalal keroog lay doog a dégg tur yu man keroog lay doog a dégg tur koo xam ne ñëpp xam nañ ne bu amee benn métier bu muy def mooy nekk ci internet bi di wax kàddu bu ñaaw di ko jëmale ci ay gox xataa moom njiitu réew mi ci boppam sax tekkiwu ko jëmale na ay kàddu yu ñaaw ci moom ci ay saaga jamono jooju nga xam ne njiitu réew mi nee na kenn nañ ko jël yóbbu ko prison njiitu réew mi nee na réseaux sociaux yi dañ ko war a réguler ba nga xam ne saaga yeeg yooyu ak ñi koy def dañ leen war a teg ay daan jamono boobu kooku ñi ngi ko dalal muy photo woog njiitu réew mi di lekkandoog moom di naanandoog moom waaye sax far la mu mayut ay journaliste ñu may ko ko mu ko interview di ko laaj jamono joo xam ne dañu ne diw sàngam dañ koy tëj parce que dafa laal ab institution waaye ci jamono jooju am na keneen koo xam ne daa saaga aw askanu lëm ba mu ko defee njiitu réew mi moo ko dalal kenn def ko dara audience lañ ko may mbokk yi réew moomu mbooleem ñiy wax tey jii ki yàlla dénk réew mi moo yor force moo yor doole moom la yàlla dénk armée moom la yàlla dénk justice parce que Sénégal nag nañu bàyyi xel ne jamono bu nekk dañ koy wax mooy justice amu fi ñun ñépp xam nañ ne am na ñoo xam ne ña ngay xool seen diggante ak seen borom di àtte ak maanute waaye seen lu lenn ci réew mi képp koo xam ne àndoog njiitu réew mi yow loo def lu mu tuuti tuuti dañ lay gaaw patam patame yóbbu la prison waaye keneen ku mu man di doon boo àndee moom loo man di def yow baax na danaa am benn mbir boo xam ne dinaa ko tudd mu leer dafa am ku ñuy wax capitaine Omar Touré nekkoon gendarmerie am benn enquête bu ñu ko doon defoo ci benn mbir ba mu enquêté moom mu gis ne lii daal ay caaxaan moo ko la mu daal di leeral loolu ñu daal koy dàq ci gendarmerie bi ñu ko dàqee amul jafe-jafe mu toog am at waxut defut dara mu wëlbatiku am benn institut africain de management ñu naan ko IAM dar koy jël mu di fa liggéeyee di jàngale ba mu ko jëlee muy liggéey di fa jàngale ci saase bu ma juumul ñaari fan ñaareelu fan ba waa école ba waa institut ba ca lañ jot ay pression ci kaw ñu ne leen kooku na ko fi jële na ko fi jële ba ki nga xam ne moo jiite école ba wala institut boobu moom moo génnal boppam daal di wax ne gouvernement bi moo ñu teg pression ngir ñu jële ko fi bi ñu ko fi jëlee ñu laaj ay expert ay jàngat ne leen kii ndax am na droit def beneen liggéey te experts yooyu ci wàllu armée la ñuy yëngatu ay spécialiste lañ ñu ne amul lenn lu ko tee tere mu mën a def beneen liggéey ci réew mi biñ ko dàqee ci loolu réew mi ñu dajaleel ko ay millions yu bare bare ci diggante boo xam ne diggante bu néew la biñ ko ko dajaleelee ñu wëlbati bu ñu jëlaat ko ci beneen barab ci Ndakaaru ñu toppaat ko foofu daan ne ko fii ba tey doo fi liggéeyee te lenn dong ko waral mooy xëy na de daa dañoo bëggoon mu feeñal lu safaanoog la mu gëm moom ak la mu gis moom tax mu teg ko topp ko teg ko loolu lépp te mu nekk citoyen ci Sénégal nekk koo xam ne daa bokk ci réew mi war ñi fi ñëpp di dundee war a liggéey ñi fi ñëpp di liggéey war a fee tekkee ñi fi waaye ñu singale ko ci loolu mbokk yi bari ki dem gis nañ procureur daldi di génn di wax ci réew mi wàllu rébellion tudd rebelle bu ñu demee nag ba wàllu rébellion ñu ngi ko lënkale aku xeet di ko lënkale aku dëkk bu ñu demee ba wàllu rébellion ñu di ko fooyee ngir lan ngir wàllu politique bu boobaa loolu mën naa indi lu baree bari ci réew loolu nañ ko bàyyi keroog daa am ku wax ne ñun la ya ñun ñoo ñun ñoo yor justice ñun ñoo yor armée ñoo yor nangam ñoo yor nangam kon ku fi yëngatu dañuy dal ci sa kaw maanaam mooy kon ñun la yàlla jox doo ji kon doole ji dañ koy jëfandikoo ci kaw nit ñi lii mooy li xew ci réew mi mooy li xew ci Sénégal beneen bi mooy daa am loo xam ne dara jël ko ci àdduna mooy dañu ne njiitu réew mi amul sañ-sañu am ñetteelu mandat ci jamono jooju njiitu réew mi waxal boppam waxal boppam moom ci ay jamono moo waxal boppam daan ne man 2024 sama jiite Sénégal ci la yam maanaam awma sañ-sañu am beneen mandat ñi ko doon dëggal constitution bi waxal seen bopp lool ay ministre de la justice waxal seen bopp loolu ñu dem ba jëmmi jamono ñu defal ko benn interview te Jeune Afrique mu ne mon travail du président est loin d'être achevé mooy sama nji sama liggéey ngir jiite réew mi loolu jeexuma te ñun ñëpp xam nañ ni réew mi bu ñu waxalee yàlla rekk nag te xam lii xew mooy acte yi am yépp di ko posé mooy lan mooy damaa bëgg a jëlaat réew mi far benn CEDEAO ci semaine bi jàll bi ñu voté ne réew yi képp koo xam ne dañoo bëgg a d'accord président yëpp képp koo xam ne bëgg amati ñetteelu mandat boo ko amee yow kenn du la jàppe président bu légal ñetti réew ñoo ko signé muy Togo Côte d'Ivoire ak Sénégal kon day wane ne ki kon dañoo bëgg a ci am nguur nguur nag yàllaa koy joxe qul illahumma malika al mulki tuuti al mulka man tasha wa tanziu al mulka gis nga tanziu xam nga mooy lan mooy yàlla buy rocci am nguur day crée ay situation yoo xamante ni si maanaam yow dangay ngay gën a dugal sa bopp ci loo xam ne yaw moo lay suuxal te bi ci des am réew yow yàlla da laa dénk nga jiite ko am na ñeneen ñoo xam ne nekk nañ ci sa ginnaaw ñoom bëgg a jiite am réew ngir yàlla li ñuy wax nii ne parce que fi li am lépp daa am lu ko indi mooy dañu ne dañuy dem élection législative ñu ne ñaari liste am na. ñaari liste yi benn jëru ci yoon muy opposition bi ak ñee far na ñee seen faute moo gën a moyen grave léegi ñu dem conseil constitutionnel ñu ne ñii seen ay titulaire mën naa jàll ñi seen ay suppléant mën naa jàll waaye ñee seen ay titulaire mënut a jàll te ñee seen ay titulaire ña ca nekk daanaka mënees naa wax ne ñoom ñooy yaakaaru assemblée nationale bu ëllëg bu ñu fa demee lu bari war faa mën a soppeeku ñu ne ñoom bu ñu demee loi góor jigéen dañ koy voté léegi am bi mu léegi ñiy jàngat ñëpp man yàlla xam na ko damay topp information yi ni mu xew ma dem mboolem ñiy jàngat ci wàllu code électoral ñu ne conseil constitutionnel ni ñu def dégguñu ko fenn mënoo séparer ñaari liste ñee dañuy dem ñii duñu dem mbokk yi lii mooy réew mi lii mooy Sénégal mooy réew mi man nag fi may daanee la samay kàddu mooy dafa am ñaar yoo xam ne ci lay daaneel benn bi mooy Abu Bakrin Siddiq biñ ko falee mu nekk njiital julli ñi daa wax lu am solo daa wax ne ayyuha nnaasu fa inni qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum eeyéen nit ñi man de dañu maa fal waaye gënuma leen gënuma leen de gënuma leen day gënuma leen bàyyi tax ñu fal fa in axsantu fa qawwimuuni wa in asatu fa in ahsantu fa a'inuuni wa in asa'tu fa qawwimuuni bu ma defee lu rafet na ngeen ma ci dimbale waaye bu ma defee lu jàdd aw yoon na ngeen ma jubbanti ne ma président da ngaa jàdd aw yoon daa di wax ne adaifu fiikum ki néew doole ku am doole man ba keroog may jël ay àqam yéen ko xañ jox ko waaye ki am doole ci yéen ku néew doole la ci man ba keroog may jël àqi jàmboor yi mu nangu ma jox leen loolu la waxoon beneen bi mooy nga xam ne ki la ñu daanee la mooy sëriñ bu mag bi moo ko bindoon sëriñ Touba sëriñ Touba daa bindoon benn lettre boo xam ne daf koo jëmale woon ci Samba Lawbe Samba Lawbe ci jamono jooju moo nekkoon njiit ci gox ba mu nekk maanaam buñ ko doon wax ci jamono ji mën nañu wax ne mooy président de la république bu Sénégal wala boo ko am na ca kër bu yaago yaago ci misaal rek sëñ Tuubaa lii waxoon kon lettre bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo yor nguur gi benn buñ fi teewul it léeg-léeg ñu am ay renseignements généraux yu leen di teewal ci ay barab sëñ daa waxoon Sàmba bi anna dunya la ta'tika illa bima tanzi'uhu min misli wala ta'ti mislaka illa bima tanzi'uhu minni yow sàmbalaw bi xamal ne àdduna lépp lu mu la jox da koo jële ci ku mel ni ki yow waaye lépp lu mu jox ku mel ni ki yow da koo jële ci yow ko fa yawman takunu muinatan laka ala gayrik wa yawman takunu muinatan li gayrika alayk daan ne ko adduna si bis lay ñëw mu daal di yow dal ci kaw keneen président bi fi nekk am na ñu ko fi jiitu woon Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi ba nguur gi agsi ci moom kon àdduna jàppale na ko dimbale na ko contre keneen waaye mu rànd ko ëllëgi àdduna dana ànd ak keneen dal ci sa kaw na bàyyi xel ne it jamono mi keneen la adduna di àndal ak lu ñu ko bañ bañ bañ bañ bañ bu yàlla dogalee ne kooko mooy yor réew mi kooko loxoy réew mi ci bopp ci moom lay bi yadihi lmulk wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla moo amee ko mën na lépp xadir fail la tëggoo muy siiratu mubaalaga mooy dara tëwu daan ko wa taaratan tudxiku ko wa taaratan fala taxtar bi daxkiha fa innaha gaddaratun wa amma qalilin taabis wa taqdau wa tambu mu ne ko yow Samba Laobé yow njiitu réew mi yow njiitu réew mi ne adduna day léeg-léeg da lay reetaanloo léeg mu jooy loola kon reetaanloo ki mu lay reetaanloo loolu bu mu la woon ndax adduna ab kon la ab fexe laa la te bu la ne diggante bu néew. dana ñëw fexeel la dana ñëw wor la waaye dana ñëw yëkkal xar kanamam ci sa xar kanam daan na ko nag kon man sëñ Tuubaa li ma lay dénk yow njiitu réew mi wa alayka bi i'anati du'afaa'i wal fuqaraa'i wal masaakiin wal man zalima nadima man jaaraba daan ko maa ngi lay dénk yow njiitu réew mi na nga dimbale ñi nga xam ne ñoo ñi néew doole ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk dañ leen dimbale mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ne tey réew mi bari na borom kër yoo xamante ni si bu naan joxee dépense ñetti téeméer tey dépense juróom benn téeméer sax daanaka mënatu leen yor seen kër ndax njëg yëpp yokku na ci jamono joo xam ne jamono bi may waxe am na koo xam ne dañu ne député la député salaire am dañu naan un million ak nangam la jamono jooju ñu ne biir këram jël nañ fa un milliard bu manqué bu uti un milliard bu manqué uti attekat yi ne ci kenn kenn waxu dara ci jamono jooju laa wax mu daan ne ko nag nanga daw li nga xam ne mooy tooñ mbokk yi boo demee ca Mauritanie dafa am benn imam bu ñu tuddee wul bu Ghazawani damaa déglu keroog benn xutbaam boo xam ne keroog samay rongoñ dafa tuur xutba bi bi mu koy def booba président bu Mauritanie wuldu xasawaan yi booba mi ngi toog bi muy def xutba bi ci jumaa ji booba président Mauritanie mi ngi jullee ci jumaa ji toog waaye keroog wax na ko kàddu yu dëgg yoo xamante ne si kàddu yooyu ku ne la nit dana taxaw di ko wax njiitum ba jumaa ji di yëngatu ñëpp xam ne ni kii ñu wax moom mooy dëgg foofu la réew mi toll kàddu yooyu nag dafa am loo xam ne bu ci réew mi àggee dafa jar ñi yàlla dénk responsabilité balaay benn bakkan di faatu maanaam ñu génn wax li nga xam ne dellu si mooy dem waaye lu ëpp dañuy bàyyi ba ay bakkan faatu ñu daan ne léegi nag nañu calme mbir yi Sëriñ Tuubaa nee ko képp koo xam ne nanga bàyyi tooñ te képp kuy tooñ da nga waaye na nga bàyyi jeng yow la yàlla dénk justice bul jeng faxkum bayna annaasi bil xaqi wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah wa an taxkumu bayna annaasi bil adl wa aqimu lwasna bil qist wala tuxsiru lmisan yàlla dina taxawal leen justice justice bu amul dara bu am kër gi nga jiite boo fa nekkee di gënale say doom di gënale say soxla kër gi du am jàmm parce que justice dafa amul maanute dafa amul waxutuma laa nag nga jiite am réew beneen bi ci tegee Sëriñ Tuubaa ne ko wala tansa anna alladi fi yadika wa asbaxta fihi min anniami innama saara ilayka bi mawti baadi man qablak wa bi ixraaji baadihim wa sa yaxruju min yadika bi misli ma saara ilayk fajtahid bima yanfauka fi daarayni qabla xurujika min anniami wa qabla xuruji niami bi intahati nas lii la ko sëñ Tuubaa dégg daane ko intahati nasiha fa in qabiltaha fa lak wa illa fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daf ne ko yow président bul fàtte ne li la yàlla jox ci nguur nga nga nga yor police yor gendarmerie yor justice xamal ne loolu day daa am ñeneen ñu ko amee woon la njëkk muy agsi ci yow ñooñe ñee faatu nañ am na ñoo xamante ni si dañ koo foqarti ci seen ay loxo jëlee ko ci na ñoo xam ne ay carte la fa ñëw jëlee leen ko daan ne noonu mu duggee ci say loxo noonu lay génne war ci say loxo kon nag mu ne ko na nga farlu ci lépp lu lay jariñ ci àdduna ak àllaaxira balaay nguur gii di génn ci say loxo daan ko nag laa diine bi jeex na boo ko nangoo loola amal la njariñ waaye boo ko nanguwut xamal ne ñun ñëpp ci yàlla lañ bàyyi ko te ci yàlla la ñuy dellu te mooy lu nekk mën na la cee fekk ndénkaan bii la Sëriñ Tuubaa dénkoon Sàmba Lawbe jamono jooju mën nañ ko misaale ne moom mooy président tey ngir nguur bu yaatu boo xam ne yàlla joxoon na te mbokk yi bàyyi leen xel bu baax lii ma leen wax Afrique Serigne Touba daa ñëwoon ngir kettali lislaam fa bashir zawil islaami bi aajilan wa kun muniran bi al islaama anta munir waaye daa ñëwul ngir sauver der bu ñuul walaysa yujibu sawaadul jismi safa bala safahatul fata wa suu al fahm wax na yow yàlla na ma def ci daraja yonent bi ma nekk projecteur bi leeral képp ko amee der bu ñuul wajal ni bi jaahihi siraaja kulli aswadi siraaja kulli aswadi wajal ni dahra bishral xumri wa suud diiral jamono na ma def ma nekk koo xam ne damay nekk mbégteem ku amee der bu ñuul koo xam ne ameewul der loolu la wax moom sëriñ bu ci jamono jooju mbokk ci jamono jooju yàlla def Afrique nañu bàyyi xel tubaab yi bëgguñu mu jëm kanam rawatina réewum France gis nga réew yu bari na lu fi xew loo xam ne loxo France moo nekk ci ginnaaw ñun ñëpp xam nañ ne suñu président yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy jëlee nguur ak ni ñu ciy attaché woo maanaam ay intérêt français la ñuy sàmm pour France ni leen dinaa leen garanti nguur gi te lu nekk jaral nañ ko bu doon téeméeri bakkan lay faatu sax dem mbokk yi Thomas Sankara ma nekkoon Burkina Faso ba tubaab yi xam ne ne day Afrique kanam dañ koo faat coup d'état lañ ko defal Mouammar Kadhafi muy Kadhafi ba mu développé réewam jëm ci boole Afrique tubaab yi dañ koo éliminer ñoom Sarkozy rey ko rey bu ñaaw ñëpp ñëpp di ko teewee gis ko naka noonu Kwame Nkrumah ca Ghana dañ koo éliminer Cheikh Anta Diop nga xam ne yàlla mayoon na ko xam-xam bu baree bari ci Afrique dañ koo boole woon mu jamonoonteeg ak njiitu réew moo xam ne lu Cheikh Anta bëgg def njiitu réew mi day ñëw gàllankoor Mamadou Dia bi mu bëggee développer réew mi jëlee ko ci loxo français yi dañ koo fexe kon képp koo xam ne da ngaa jóg ne da ngay fexe Afrique der ñuul moom boppam. tubaab bi pare nañ ngir faagaagal la pare nañ ngir ànd ak ñu yor nguur ga ngir ñu rey loolu mooy li am léegi nag ñun Afrique ñooy xool est ñun bëgg nañoo des ci noteelu tubaab bi est ce que bëgg des ci ay yoo xam ne tubaab yi dañuy diglu wala boog dañoo bëgg a moomaat suñu bopp kon loolu moo doon samay kàddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal nañu yàlla defal dégg ak topp yal nañu yàlla defal tawfiq yal na yàlla def jàmm ci réew mi di jébbal bu baax na kàddu yi daa doon kàddu yoo xam ne fii la réew mi toll nii la réew mi di doxee loolu képp koo xam ne da taxaw ci kanamu mbooloo te waxu ko da nga am responsabilité sa diggante ak sa borom li am solo mooy kàddu yi ñuy wax na jëm ni yàlla rek tax ñu di ko wax bu mu nekk ak parparloo bu mu nekk dara te alhamdulilah sant nañ yàlla ndax jàpp nañ ne jëm ni yàlla rek moo tax ñuy wax kàddu yi te fii la réew mi toll wasalaamu aleykum wa